Yeah! merci merci merci merci merci applaudissez très fort ah oui oui applaudissez très fort ah Astou Bambara tey dañu am benn invité bu tudd Astou Bambara fàttali Astou Bambara ah Astou Bambara ngi noonu Astou Bambara s'il vous plaît Astou Bambara kaay waay kaay kaay kaay kaay Astou kaay suñu xarit nga vraiment Astou Bambara Astou PC du Bokora frappe fàttali Astou Bambara Eh, asu bambara <laughs> bilaay bambara bu mag bi waay asu bambara dina ma mbokk yi xam nga nuy def dañuy woo madame Diblon mu ñëw directement dem ci produit yi ñu eh, eh, wax leen programme bi du mu tëdd tey madame Diblon di Mati Samb madame Diblon Mati Mati Mati allez waaw bonsoir tuuti à tous mbokk yi xarit yi nee naa leen comme ni ma koy defee chaque jour ci sama table ji ànd ji xam nga nag ma jàkkaarloo nee naa leen sama xol daal di féex nekk nag xam ne ne li nekk moo moo tudd Diblon. waaw waaw boisson énergétique la papa. Ah. nekk boisson boo xam ne nee naa la tarkalla boo ko naanee. bu fekkoon da nga tayal ànd ak cawarte macha allah yaay raw fasu sa yaram bu nege nege. day daal di day gaaw. macha allah yaa ma gën a xam te xam nga lu ci gën a neex. xam nga dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg chocolat ñii bëgg café ñii bëgg li nga xam ne mooy boisson su fekkente ne doo naan li nga xamante ne bi mooy boisson bi mun nga jël li nga xam ne mooy café bi xam nga boo yeewoo par des fois sa yaram mooy loolu da koy daal di naan rek énergie bi nekk fii nii moo nekk fii. kon maanaam li nekk ci boisson bi. moo nekk ci café bi. moo nekk ci café bi. tamit moo nekkaat ci chocolat bi. Ah, am nga dafa am chocolat. dafa am chocolat. bi def ko chocolat bi. chocolat ko. Ah. chocolat. mais boo ko màccee te xam nga instant bii nii dëkk bi def mooy loolu. da nagam siburu yi yi xam nga waaw ak nawet bi nii xam nga ak ah. bu tawee ba pare sa yaram day sedd da nga daal di jël wala nga ma nga daal defal sa café rek da daal di dégg jàmm. ah waaw waaw waaw. waaw nag. mooy chocolat bi. bii mooy damal ma ci. waaw damal ma ci gis nga baax bi boo tayal tayal boo leen toogoon nii sax ngeen di tayal wala ngeen di gëmmentu boo ko daggee ku nekk nga jël nga jël benn jox nga nga ni gisoo fa bi <laughs> allah. ba pare xoolal nee nañu pro produit bio la. gis nga dara raxu ci. dëgg la papa xam nga produit bi lu ci gën a baax. waaw macha allah amul benn lenn loo xam ne nii dafay def effet secondaire. sa yaram yoo xam nga ne xam nga ne moos mhm. chocolat mhm. Euh, dafa nekk approche rek moom kese rek chocolat kese boo koy màcc rek moom kese. macha allah doo doo doo doo tayal. dëgg la raxte na ñu ñu ñu ñu ñu boole ci ay meññeef yoo xam ne. Mhm. dafa naturel te amul dara lu ci lu ci rax. gis ñu euh, kër yi. waa tarkaale damay dugg ci li nga xam ne comme ni ma koy waxee xam nga ne kalaasu kii gi jaara bu sa gi boo leen di ndawtal jox ko xaalis dañ koy daal di kottu booy seeti sa bébé fekk ngay seeti ko wasin wala ñu tuddee la doom dangay ngay dugg ci marché yi jënd li nga xamante ni mooy gaamu baby mét bi te gaamu baby mét a neex mooy gaam dafa metti hmm? niñ ci defaree bu mag noonu lañ ci defaree aussi bu ndaw bi lii mooy poudre bi poudre bi macha allah nee naa la mag sax mën na ko utiliser am bu mag am bu ndaw bii mooy mooy lait pour yaram am na bu mag am bu ndaw mooy bii mooy gel de bain bi ah, am na bu mag am boo xam ne ni mooy bu ndaw bii mooy bii mooy parfum bi am na aussi bu mag am na bu ndaw kii de karité bi bii mooy ba mooy beurre de bi am na bu mag am bu ndaw waaw am na lingette bi am na bu mag am bu ndaw ta te lingette xale mag mu ndaw am na bu mag ah, bu mag papa boo duggee ci marché xam nga am na bu mag xanaa xamul lii nañ ko def benn gaan def ko ci ba rafet di ko jaay waaw dëgg la am na savon bi tamit mooy nii macha allah nee la xale mag ak ndaw même boo nekkee tey noir mën nga ko utiliser papa huile bi mooy nii ci kanam huile bi aussi non gel de bain bi laa leen wax waxuma la woon huile bi huile bi mooy nii huile bi nu mu amee bu mag tamit aussi noonu la amee bu ndaw kon macha allah ku Kouthia mu daal di doxal. Euh, kaa taxawal fii <laughs> euh, dama ne. sama doom nee na ma. waaw papa bi may dégg muy jolle bi Kouthia show papa papa papa. waaw nee na ngeen bàyyi papa ji parce que moom li ko jaaxal mooy. waaw man man moom musul gis. la dégg ñu naan papa papa papa rek. Mhm. papa ku jug na papa. waaw te mu noonu defal nank mhm. yéen topp leen ma naan ma papa papa papa surtout yow. <laughs> papa papa ji papa ji ñanga papa papa papa jaar <laughs> tourné papa papa. waaw est-ce que mun leen bàyyi papa ji. mën nañ ko bàyyi xam nga di la cëral rek la Abou non non non mais sama doom yi ngi kaas. ah nee vraiment ñun papa ñii kañ nga leen jur xamuñu leen. maa ngi ñu juree tamit nga ñu juree nga ne dañ moo tax ñu leen di wax yëpp. ma ne wàccal ko. eh papa loolu cëral la yaa ngi Samba Sine jëpp si léegi nag dañuy dem ci programme bu mag boo xam ne tubaab bi yëngal jamono yëkkati ay kaddu yu doy waar mhm. nee na jumaa bii murid di tabax mënoon naa ñàkk xam nga ne kii ku kuy xamadi ba yem ci tubaab bi nag waaye bett parce que moom ci parti bi nga xam ne ñi bañ ñi ñuuli fa la nekk mhm. mooy numéro 2 mari Marie Pen mhm. ma dikk ñaan nag mbir bi métti na ko trop ba da koo jooy Ablaye Wade na nee na tubaab bi dañoo yebaate parce que moom moom joxe terrain boobu moo def pose première pierre Macky Sall nag nee na moom dina won ne Baye Fall la nee problème bi moo ko réglé loolu mooy programme bi tey ci dañuy jublu ak équipe bu Kouthia Show ci réalisation bi di euh, euh, euh, Fatima Evans réalisatrice internationale ñu ko nuyu di ko gërëm ak ak feggoo ki nga xam ne moom mooy suñu xarit di Pape Silla mi nga xam ne nag moo yor ca son ba ingénieur en son jénn jëma ñaari caméra sëñ xaadim fekk ko xaritam di Abdou Khadar ñoo nekk nag ca caméra ya ñu ni bu baax ki nga xam ne coordination diggante ñun ak head office di Awa Diouf di am mbégte contentement ci kara sécurité tonton Pierre ci dem ak dikk bi euh, ñu ni itam bu baax euh, tige euh, buzz moom tamit ci jàppandal bi waaye am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi fi tey nag dañoo am ñaari kenn ki nag ma nga bàyyi ko Kaolack kenn ki bàyyi ko Dakar Astou Thiam moom tamit ñëw na seetaan si émission Kouthia Show ak Astou Bambara ñoom ñaar ay doomu Saloum la ñu ngi fii ci émission communication ngir ànd ak ñun xool liggéey bi nan lay demee ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax na ñu yenn ak ñun kenn dalu jàmm di am mbégte contentement di ñaanal kilifa diine nekk ci réew mi yëpp waaye bu ñu sant yàlla suñu borom mi ñu sàkk nag tax ñu doon ay doomu aadama ñu ngi koy gërëm waaye di sant euh, suñu yonent bi di Seydina Mohamed paix et salut sur lui gërëm nag njabootu Alaaji Omar Fuutiyu Taal bi nga xam ne nag euh, foofu am nañ ci yaakaar lool ci njaboot gi di leen ñaanal tamit ñoom ñu leen di yéen kenn doon jàmm dale ko ci xalifa ba ci suuf waaye sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa général kulu murid ziar nañ ko sama papa sama sëriñ sama sama lépp nag ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di sëñ Bay Si Mansour xalif général kulu murit ak Pape Malick Si bi yor kàddu kër ga sëñ Bay Si Mansour yàlla na fi yàgg ci wér moom ak sama yaay di la ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di am mbégte contentement di Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bi Medina Baye yàlla na fi yàgg ci wér ak Serigne Mame Abdoulaye Thiaw nekk ca Laayeen xalif général des Laayeen yàlla na fi yàgg ci wér ak Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass bu lay wan a Niassène yàlla na fi yàgg ci wér imam Cheikh Cissé nekk ci Medina Baye moo ngi koy jiite yàlla na fi yàgg ci wér ak euh, xalif bu Ndiassane di Cheikh Bekay Kunta ak Serigne Cheikh Tidiane Seck bu Thiénaba Thierno Bachir Tall xalif Omar yàlla ma ngi waxtu bi ñoon nag ñu ngi koy nuyu ak doom ja euh, Cheikh Omar nekk nag ci États-Unis waxtu bi ñu wax ak yéen ñuy nuyu tamit bu baax Serigne Mouniru Diegane xalif bu Serigne Amadou Baro Diegane ak Chérif Khaya Aïdara ca Nimzat Serigne Mohamed Lamine Ngom ca Paas Cheikh Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass ca Dakar ba ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak yaram di yónnee suñu njaal ba tey ci li nga xam ne nag moom moo dal ci njabootam ñu koy nag ñaanal tamit ka fa jóge yàlla ko yàlla ci xar àjjana yi gën a kawe waaye Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu Mame Cheikh Mbaye nekk ca Louga ziar nañ ko Serigne Mansour Cissé xalif bu Pire sëñ Abdou Dramé nekk nag xalif bu euh, Ndande ak sëriñ Abdou Cissé xalif bu jaamal Thierno Madani Tall xalif bu Thierno Mountaga Tall nekk fii nag ci Dakar ñu ngi koy nuyu ak Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé Ndiambe borom daaru capasi di nuyu tamit Thierno Abdourahmane Bari sama baay la waaliyu kaamen la wan ziar nañ ko sama papa bopp ko ñaanal ak jëwriñ Moustapha Sène mi nga xam moom jëwriñ la euh, sës rëkk ci sëriñ Fallou Mbacke docteur alaaji Thierno Sama Samora bi kooku Thierno koy ñaanal fan bu gudd di waaliw kaamil sama papa la ma nga ca Fuuta di nuyu tamit góor gi Samba Ndiaye di sama baay nekk nag ca Ziguinchor di waaliw kaamil moom tamit ñu koy nuyu ak imam François Bodian xalif général de la nekk foofu ca Casamance sama baay la ñu ko delluwaat sama papa nag di Thierno Bokar Alpha Ba waaliw nekk ca Warafondé moom nag suñu baay bu baax la ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gëram ak Thierno Mamadou Adama Gaye di waaliw kaamil nekk ca Ñanka Idi sama baay la ma nga nag ci di waaliw Kamin ak sama yaay ajaratu Bousso Cissé ziar nañ ko sëñ Mamadou Sougou Waadane moom nag moom moo seexal papay Awa Kara di waaliw Kamin borom xecc gi di euh, Cheikh Adama Niang alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ci Passy sëñ Abdou Karim Mbacke moom mooy sëriñu Mama Mbeng ñu koy nuyu di ko ziar cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak ñoom ñëpp nag ak man sama xarit abbé Euh, monté yi nekk nag foofu ca paroisse bu ndol-ndol maa ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gëram ci barke yonentu yàlla Yesu Christa borom xel mu sell mi mboolem chrétien leen di ñaanal kenn lu jàmm Fatima Fall sama yaay la sama marraine la ma nga ca Ndar géej yàlla na ko ak monsieur euh, ak sama papa ñu <laughs> ne ko Serigne Mansour ca Buudi ak suñu yaay Adja si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum bi ñuy jooy ba tey te noppi bu ñu yàlla na

koy waajal nag guddi gu rëy goo xam ne delloo njukkal waajuram la na lu ma ñaan kan la yàlla ko yàlla defal jàmm ak sëriñ maam Samba Dramé xalif bu sëriñ Makhtar Kala Dramé ziar nañ ko ak cil maxam baxoon bi nga xam ne ay kilifa diine yu mag ñoo fa nekk di ay mbokk Pape Cheikh Diallo di sëriñ Idrissa Diakhaté sëriñ Ousmane Diakhaté ak imam ratib la Idrissa Diakhaté waaye nag ñu dem nag ci euh, mbokk tige ki fait le buzz ay maamam di Alaaji Mbàkke Tandian di waaliw kaamin boo xam ne nag nekkoon na fi ñu ngi koy ñaan yàlla leeral ba menam waaye nag njabootam bi nga xam ne ñoo ko teewal fii di téye nag ak alaaji Mbacke Tandia bi waaliw kaamil ak alaaji Omar Tandia ñaari xale fii ay waaliw kaamil nañu yoo xam ne ñun ci dëkk ba nga xam ne mooy Medina Tandia yi waaw kilifa yàlla nañ fi yàgg te wér amiin yàlla nañ fi yàgg te wér amiin yàlla nañ fi yàgg te wér amiin yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna yàlla yàlla xara ca àjjana gën a kawe mbooleem kilifa diine bu ñu tudd ak bu ñu tuddul bu xam ak bu ñu xamul ñaan gi yëpp ëmb na leen ndax ñoom ay ay ay jàmbaar nañ ci yoon bi ñoo ñuy aaye ñu bàyyi ñoo ñu sant ñu def yeneen yàlla yàggal ci réew mi moo tax képp koo xam ne yaa ngi diingat kilifa diine yi yal na la yàlla toroxal yàlla nga dee ci lakk boo xam ne sapeur pompier dañuy yéex a ñëw parce que ñii ay nit yoo xam ne ñu dépassé nañu dimension doomu aadama ñoom ni ñuy amee ni ñuy utee audience gis Macky Sall ñoom noonu la ñuy doxee audience ak suñu borom di gisante ak ñoom kon ñii ñu dara fonk lañ képp koo xam ne yaa ngi leen di wax naka sudul noonu yàlla boo ko fekk léegi nag am na benn tubaab boo xam ne ma nga ca parti Marie Le tubaab ba tekkiwul dara tubaab boo xam ne moo topp ci Marie Le Pen Marie Le Pen nag ku ko xamul mooy jigéen bi nga xam ne nee buggul gis nit ku ñuul bu sañoon nit ku ñuul du tekki bu sañoon nit ku ñuul nekk France yëpp dañuy génn ki topp ci moom xaw ma nan la tudd waaye Canada daal la sant Canada Canadaas moo yàq lu mel na xeme ne ñun waruñoo tabax ay jumaa fii te nekk Sénégal dëkk boo xam ne dañoo xiif waaye dellu delluwaat na ci ay kàddum tuub laa ilaaha illallaah da koo wax ñetti fan ñeenteeli fan bi mënutul nelaw ay gént yu metti lay gént ba pare nag nekk ci tuskare boo xam ne jeexagul moom nag nañuy invité tey mu toog wax li tax mu waxoon loolu ak ndax mu génnaat ñu dem seeti ko ku ci nekk ñu lay sant bu baax di la ñaanal yàlla yàlla na fi yàlla dafa jàmm waaye nag tey ñu ci naan seen émission bu mag boobule seen xarit seen doomi ndey Matas Mbaye di ko def tey nag ñu dalal fi koo xamante ni nii moo def njombi ci réew mi moo ko fi wax wax fi loo xamante ni nii mara détaillé ku baax maa ngi lay nuyu. ñu lay fay. am jàmm. la ndox amoo jàmm. dama doon sob soblu di mhm. wax nii waruñu tabax juma mhm. muxit yi waruñu tabax juma Dakar mhm. bi ma koy wax dama ñàkk wax rek aw ma lu ma wax ma wax waaye gis naa buy guddi jërëjëf gis na buy gisagoo sax buy ndax li ngay gis lépp luy ñëw te ñëwagul la mm. waaye man leen dafa am leen la ma ci xaw a jaaxal yow gis Mali waxoo Mali waxoo Burkina Faso waxoo Canada waxoo Bunkiling fenn waxoo ko ñëw ba Sénégal suñu tiit lii nga xamante ni nii ginnaaw yàlla yonent bi mooy suñu tiitar ginnaaw yàlla yonent bi fii na ni jaamoo yàlla nga dem di ci wax loolu ji loolu jëli ci loolu. maa ngi jégalu. yaa ngi. jégalu. fii ngay jégaloo nii. maa ngi jégalu képp kuy murit. Mhm. ak kuy Baay Faal ak kuy jullit. ñàkk waxtaan moomu dugaloon foofu. ñàkk waxtaan. Mm-hmm. waaye bi ma ko waxee ba tey nekkuma ci jàmm parce que. lan moo tax nekkoo ci jàmm. damay tëdd ba guddi di gis ay kuur yu dal sama ndong. ay lan kuur kuur. yu dal sama ndong li suma gént yi su ma yaram bi nagaan ba pare ma mel ni dem. yow kon ay eh, eh, kuur nga gént. gént goo ay gourdin. ay gourdin ay gourdin gént goo ko. gourdin. gént goo ko. <laughs> it yaa ngi koy gént. léegi nag man maa waxoon ma waxeet. yow it yaa waxoon waxeet. waaw waaw ndax ndeysaan. parce que seen dëkk bi dëkk wax waxeet la. kaan man maa waxoon maa waxeet te du ma ci dellu ginnaaw du ma waxati dara ci yoonu. mooy jërëjëf dootuma ko dollee te doy na ci tuubam mag mi ngi nii toog moo ko waxoon léegi fi mu toll na maa waxoon waxeet ci lan loo xamante ni nii sunu lii nga xamante ni nii mooy Masalikul Jinaan fi foo xamante ni nii wax dëgg yàlla mooy sunu tiital yaakaar naa ne booy demee bay wax di nga wax le ah kenn waru ko ma ne juma bu mag la kenn waru ko leem leem. waaw yow xanaa dala dala sonal ay wax rek ngay wax rek. war na am ñeent sax. war na am Dakar am Tëngéej am fépp maa waxoon maa rayoon Lamine. Hmm. man may nelaw suma nekk maa gis li ma gis du ma ko wax. la ilaha illallah li muy ba pare. Hmm. loolu bi ma ko waxee ba pare. adduna bi yëpp ñu ngi may saaga. xaw ma ne pour man mu ngi Dakar rek la. yow boo yemee ci ay saaga sax santal yàlla. léegi. Hmm. pour man muxit hmm. Touba kese la yem après laa gis ñu may saaga ci olof ah ci tukulóor ci soose ci njaago ci pël ci anglais ci chinois ci japonais ay tubaab yu mel ne man di ma saaga naan ay muxit lañu musu woon xam ne noonu la affaire bi amee dool dootul ma ko defati jërëjëf dootu ko defati na ci tuubu mag mi ngi nii toog moom mi moo waxoon moo toog fi nga ni ma wax li dara loo ci bëgg a dolli pour wax ne man loolu ma def hmm. damay wax képp koo xam ne yaa ngi waxati hmm. bul wax ak kilifa diine muy murit muy tiijaan muy layeen est-ce parce que man maa xam li ma dund fan yi est-ce que xam nga ne ñooñu ñooñu ginnaaw yàlla gi yunti bi ñooy sunu sakk fii ci réew mi man ñàkk xam moo taxit loolu damay wax pour Sénégal nañu fexe ñuy jàngale kilifa diine yi ñu xam leen. parce que bu ñu leen xamul du ñu jëlee jàppee kon ay nit kese kese léegi wuyu ma. Hmm? pour waa Touba baal ma. Hmm? dama bëgganteeg benn sénégalaise mu ne moom mu ngi tudd euh, moom fii la dëkk euh, France la ñu xamante. Hmm? moom la àndal pour sax ñu xam ne. man ba ñu ma nit ku ñuul moom laa bëgg jël takk ko ñaareel. waaw pour tuub rek pour tuub. jërëjëf mi ngi noonu ana gan nga moom la àndee ana gan nga mi ngi fii ci bëtt bi miyee miyee miyee astafurlah miyee bismillah miyee la star qui m'appelle eh way ndaw <laughs> fii tey lay toj kii mooy miyee ah non qui m'appelle ici eh, eh, eh, ah ok ok d'accord il faut l'expliquer que si je t'ai rencontré où Euh, à Paris, en France. Je suis rentrée à Paris. Oui, en France. Je t'ai dit que tu es sénégalaise, tu m'as dit oui. Voilà. Oui. On c'est-à-dire en Nantes, de la Loire-Atlantique. Tu vois <laughs> Voilà, il pleurait, il en larmes. Oui, oui. Tout simplement parce qu'il voudrait s'excuser au niveau de la communauté mouride du Sénégal. Dootul ma kii kii moom. yow loolu ba mu c'est en France. dootuma ko defati dootuma ko wax kooku dootu. le refaire. c'est vrai il va plus le refaire. dootu ko defati. mukk le refaire. wax D'accord, voilà. Euh, la communauté mourite euh, sénégale, il, il, il, il, va falloir le pardonner parce que sincèrement, il s'excuse vraiment, Merci. regrette. De rien. Tout à l'heure, bébé. D'accord. Bébé. Ok. maa ngi jégalu ne man ma ko ñëw. kooku mooy Mia. waaw moom kooku moom kii ngay bëgganteel ca ca France. loolu la jërëjëf mbokk yi kon mi ngi noonu wax dëgg yàlla. lii ay ay bay faal ñoo ma ko jox takkal ma ko lan takkal ma ko ay bay faal ñoo ma ko jox ay bay faal la jox lii ah, takkal ma dootuma ko doole te doole ci bu xam ne bay faal laa ndekete booy tooñ murit dafay man pour man murit Dakar Touba la yem ndekete dem na ci àddina bi léegi léegi dama bëgg a tuub da ngaa bëgg a tuub waaye ci kanamu sëriñ bi ci kanamu sëriñ bi ci kanamu sëriñ yëpp jërëjëf ci laa yi nit yi jaan ñëpp ñu tuub naa ko dootuma ko def li may daj guddi gi mënu ma la ko wax dëgg ko dara jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu wax dëgg yàlla di di tuub di baal wax am loo xam ne da koy bëgg askan wi ngay bëgg askan wi. fay laay may leen morceau bi rek tuut naa ko. Tunisie loolu yëkkati na ko ci kaw. grand-mère Seynabou Seck depuis Mauritanie papa ba Boukar Tambou et toute la famille Tambou eña ñu ngi leen di nuyu di bu baax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy daayira faxuwul du daara yi nii li xitmatil xuraan bi nga xam ne nag Serigne Ndiaga Diagne nee na gërëm na ñëpp nga xam ne teewoon nañ ci jàng yi nga xam ne maanaam Euh, bés bi nga xam ne moom la amaloon di dixième édition bi ci ñëfa teew ñëpp nee na gërëm na ñëpp bàyyiwul kenn sant nañ ko bu baax moom tamit di ko delloo njukkal euh, di leen fàttali nag ne ñu ngi am mbégte contentement di wax dédicace à Ndeye euh, Ba yaayu Boubacar Ba depuis Paris la France en vacances au Sénégal Oulimatou Ba Ami Ba maman yaa Ndeye Mbodj Ndeye Ndiaye Mbodj Rocky Mbodj Ami Mbodj et toute la famille Mbodj de Dia et particulièrement à Kee Ndiaye depuis Paris Astou et Bigué Ndiaye Ndiak Sène boutique cheveux naturel Jox Family suñu xarit la moom mu indi cadeau bi tey ñu ngi koy gërëm di ko sant dédicace à Arouna Ba maire de Ranérou Bokar Ba Ousmane euh, Bokar Ba Mamadou non Safla Moussa Bokar Thiam maire de Ourossogui dédicace à Koumba Bongel Ba ak Dieynaba Seydou euh, Sow depuis Ranérou dédicace à maam Ndeye Koumba Diouf chéri tonton Salif Ndiaye leurs enfants et toute la famille Ndiaye Diouf a la cité cité Kër Gorgui ñu ngi leen di nuyu di wax Ah, asuma mara ah, am na la xew ma di keña li tubaab bi wax nii metti na ko metti na ko metti boo xam ne maître ma di keña actuellement nii li tubaab bi wax ñu naan ko Canadaas am na lu ko naqari lool lool ba moom nee na fu mu ne nii jàkkaarloog tubaab bi ak jàkk ak bakkanam la yemale ah. nee na même bu fekkee ne dañ ko ci xolal tëj kaso ah. moom tubaab bi bu dox dox ba teg tànkam Sénégal wala Afrique wala moom mu dox ba daje moom leneen lañuy wax waaye dootul doon lu ñuy wax lu ñuy nettaliwaat ñu seeti maître Madické Niang moom ci boppam bu la fàtte ne mbokk yi tool yi nag <laughs> li ko suul yombul de il faut waa senegal xam ne ne tool yi du toolu ndaw ab tubaab boo xam ne yebaate weesuwul ah nga ñëw naan da ngay dugg si si ay affaire ñu seeti tubaab bi ki ko dalal mooy euh, astafurlah ma dikkee ñaa ki ko dalal moom mooy buur géwél sama gën a ngi nii toog di koo xamante ni nii kenn dootu ko présenté ci réew mi ma dikk ma dikk ñaa di koo xamante ni nii di taalibe Serigne Touba Khadim soon di kenn koo xamante ni nii boo ko xoolee nga xam ne ndar-ndar bu mag baa ngi nii maître ma dikk ñaa maa ngi nuyu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal ñëpp. ci barke sëñ Saliou di nuyu ñëpp nag di leen xamal ne barke dem ba tey nelaw ma. Mm-hmm. te ndagam ñaari rakk yi nga xam ne dafa am ci ndar. te ma bokk ci comité d'organisation bi sama xol dafa jeex. parce que. jërëjëf jërëjëf wax dëgg sama xol dafa jeex parce que am na loo xam ne su ma ko waxul dafa da tubaab bi nee parce que am na loo xam ne. am na loo xam ne dafa ñaaw sax parce que bu fekkee ne ab tubaab moo mën a ti kàddu yu ñaaw di ka teg ci yoon di wax ne ñun waruñoo jël fii di fi def ay juma parce que xanaa tubaab bi dafa dof wala dafa tàggo war a dafa màndi parce que am na loo xam ne boo na soo sago doo ko wax parce que ñun amuñu lenn lu dul yoonu Serigne Touba amuñu kenn ku dul Serigne Touba amuñu lenn lu dul jubal Touba bi ak sa wër waaye nag am nga liggéey mm. président Macky Sall am na liggéey parce que lii nii lii nag duñ ko caaxaane de fii lañu ñu jàpp ay tubaab ay nit ñu ay ay ay jullit ñu ñuy woote jullit rey leen président Macky Sall jóge fii dem ba France ànd di dox loolu ab tubaab yëkkati kàddu gu ñaaw jëmale ko ci yoonu murit président Macky Sall bu doxul nag ñun dañ dox ci kawam ñun parce que duñ ko seetaan duñ ko seetaan jërëjëf duñ ko seetaan duñ ko seetaan may ma dégg ñaa wax dëgg yàlla tax tey taxawaay gii nga ñëwee wax dëgg yàlla xam na ne lii ngay dund loola métti la waaye yéen nan nga ko bëgg a arranger. li may wax ak moom xam naa ne xaw ma dégg na wala foro dégg la moo xam loolu concerne moi. Hmm. waaye monsieur monsieur monsieur Canadas il s'appelle monsieur Canadas. da nga koy tiimale ne. je t'avertis que je en train de t'agresser. Hmm. tu es une honte laa wax. baadoolo. tu n'es rien. je te dis que toi tu es un sale tubaab je dis. non dafa nekk dama la ma sama ko saagay sax dagan parce que déglu ma man dugguma képp koo xam ne da nga nekk ci di wax na nga wax loo xam ne da nga koy tegg ni ci yoonu ci yoonu diine ak foo munti nekk nag gis nga Sénégal il faut ñu am loo xam ne dañ ko war a bañ parce que président Macky Sall li bu ko seetaane ma xam ne nag jot na pour ñu taxaw wax moom parce que dégloo adee li may wax dafa leer. jërëjëf li may wax dafa leer tey bu fekkoon ne ab tubaab sénégalais nit ku ñuul moo nekk France ne léegi seen lii a war a seen lële jaarul yoon ba tey ñu ngi koy wax loo xam ne naka su noonu. léegi nag pourquoi du gis nga Canadaas. Canadaas may xool xaw ma ma waaye bu ñu jàkkaarloo ñaari néew ñooy am soit yaay dem moo dem wala yow yaay dem te sa bu néew am yow yaay dee. nga dikkee xam na ni yaram wi daa tàng kuntul ni ku la dégg xam na ne xool ngay waxe nga baal ma rek kur gi doo ko déplacé loxo benn wax dëgg yàlla sama xel mën a dal jërëjëf kooku ko ma di keña nii nga mel nii wax dafa tàkk rek lu ko neex la koy la koy defaree ñoom dañu yaakaar na ñun suñu ay néeg yi yàlla dafa war a doon ay fenêtre dañu war a doon ay baraak loo xam ne day seen àddina dafa am loo xam ne tey kenn war a ko seetaan dëgg la yàlla ñu ne néeg bii mooy néegu yàlla ci la ñuy jaamoo yàlla mhm. dëgg la néewuñu néeg bii mooy néegu Sëriñ Tuubaa de dañu néegu yàlla jumaa la dañ fay jaamu ji yàlla dëgg la waaye léegi ñun murid yi ak ñu dul murid sax dugal ci seen alal mhm. léegi tubaab bi am leneen lu waroon wax lu rafet jël lu wax ju ñaaw di ko teg gis nga ñun am na loo xam ne ab murit kese sax mën na ka sa sasoo waay murit ci boppam moo aajo bu ñu joxee ndigal ku nekk ñam ci joxe dëgg la ab murit kese mën naa jël charge tout jumaa yëpp defoo ko moom ke dëgg la parce que am na ay milliardaire maam borom Tuubaa milliardaire sëñ Fallou sëñ Saali Mbàkke mu daal di maam Cheikh Ibra Fall ñooñu ñëpp am na ci tarixa bi mhm. waaye nag ab tubaab boo xam ne laaj ñu la egg woowu ñu France dañu may ñu ciment joxuñu la nga defal ñu architecte yow tubaab bi ñaan ñu la autorisation pour tabax fa mm. suuf si moomoo ko sa bàyyi moomu ko sa baamaati bàyyi moomu ko Serigne Touba ñaari rakkam yi nga xam ne moom ñu waaj a def may ma ma ñëw dama ànd ak aal ñaari rakk yi nga xam ne moom la ñu war a def Touba lii la doon bañ ndax te biir ba te ndar da nekk signé mu ne di signé kon nag bu ñu demee ba lii jege ab tubaab génnaat di wax loolu suñu kon nag kon nay bàyyi ma kon nag mu tey parce que Serigne Saloum am ma dikkee laay laay li la mbokk yi yéen a ko gisandoo lii ngeen gis nii nga xam ne ma dikkee ñaan ne na lañ ci xol lay waxe bu nuy ngeen gis ni nga xam ne taalibe sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul funtali nag xam naa ni funtali nag xam naa ni rési yéen nag yéen a mën a dimbali yéen a benn sikkaru Baay Faal goo xamante ni nii day seddal sa température température ma dikkee defal dat ndox damaa sori ma dikkee defal dat rési nag waxtu bi ñuy dafa dañuy dem seeti président Macky Sall président Macky Sall moom tamit coolu yëpp ah bu ci noppee ndax dina sotti am déet ñu seeti Macky Sall moom mi nga xam ne Bour Gueweul moom lay dalal tey nan lay mujjee mbir mi Macky Sall jërëjëf jërëjëf jërëjëf wax dëgg yàlla sunu président mooy sunu gan di président de tous les sénégalais fan yee passé mu nekkoon France yàlla def mu jibbi si mais président na nga digg waa ji wax waxam ju ñaaw ji jëmale ko ci sunu jumaa ju mag ji di Masaalikul Jinaan bi ma ko dëggee maa ngi nuyu sénégalais yëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant bi ma ko dëggee la ma lekkoon yëpp dama ko wàccu ah la ma doon liir dama ko mujj xotti ëpp naa def di ka ma doon waxal dama parce que li mu def dafa atteindre li nga xam ne moom mooy suñu dignité te def na loo xam ne tey su ma ne nemm na yasar na yasar gann kon dina ne Macky Sall mii dafa bàyyi loxoom. dëgg la. tubaab bi li mu wax daf ko teg ci ñàkk teggin. waaye dootoo ko defati ndax man fas yéene naa tànk taxaw. Mhm. tembe. lijjanti ko ba mu saf saf nga xam ne man du ma ñoom. bilaay bilaay wax dëgg yàlla lii lii nga xamante ni nii moom la président Macky Sall wax wax dëgg yàlla boo na ko waxee suñu xel day dal waaye ñu bëggoon xam rek nga bëgg a bëgg a moom. parce que li nga xam ne moo jotoo am. Mhm. man yaakaar naa ne tey mënu ma suul jëf. dëgg la parce que terrain boobu président Abdoulaye Wade moo ko joxe woon. Mhm. dépose première pierre waaye yàlla ci sama nguur la nar a dogalee. mu yàggale incha allah bu ñu ci yegg ak ko. dëgg la kon lii nga xam ne moom la wax di wax ju ñaaw. Mhm. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla lii lii moo lay wan nii lii moo lay wan nii tubaab bi wax na wax ju rëy wax na wax ju ñaaw wax na wax joo xamante ni nii yàlla bu mu ko waxaat ci mim réew wax dëgg yàlla président parce que am na loo xam ne tey su ma ko toogee seetaan ko mhm. dina ne Macky Sall mii xanaa moom ci boppam lii nga xam ne moom la tubaab bi wax nii xanaa moom def ci ànd dëgg la dëgg la war na yàlla yonent bi bi ma ko déggee daf ma fekk ma sax li nga xam ne mooy sandis sandis waaw dama ko yàbbi am ko ma ne waxoon téléphone dama ko raccroché Kour mhm. oh. Baye Fall la abbu nga ni si sa loolu laa mu ñëw ma ne ko demal ma Touba abal ma Kour Baye Fall ma abal la Kour mu ne ma Touba day sori am na bu ma dem sama kër dana ko génnal laa ilaaha illallah ma ne ko wax nga dëgg ndax diggante dem Touba ak ñëw lu naqar na ci kon alma Kour mhm. ki nag man ak tubaab bi yaa ngi bat corps à corps dina xam ne na lépp tey lay doon dëgg. laa ilaaha illallah. parce que li nga xam ne moom la def nii tey métti na ma ci kanamu yàlla danaa ko réglé tey ba Sénégal ay xam ne kenn doon lal li nga xam ne mooy suñu dignité. jërëjëf ko ba leen ko déggee mooy li mu wax leer na li mu wax leer na ku xam président Macky Sall nga xam ne dawul yootaa ku xam président Macky Sall nga xam ne ci fit wi ci jàmbaar gi wax dëgg yàlla ci mën a xare gi waaye président Macky Sall wax dëgg yàlla waa ji lii mu wax nii yaakaar naa ni dootu ko waxaat. dama ne bu ko réglé wul boo ñëwal ba fii tuub président Macron ci boppam jot bi ko dal ci kawam. ah moom Macron loolu laay wax loolu laay wax duma ko xaaree. Eh. parce que am na loo xam ne tey yabaata la. dëgg la parce que ñoom moom mi nga xam ne moo wax wax ji ñàkk teggin gi nga xam ne amal na ko. Mhm. duñu ko nangu tay duñu ko nangu ëllëg te man maa koo réglé. Mhm. du ma bàyyi kenn dem di ko réglé ma te ma nekk njiitu réew. wax bi laay man war ko mën a a réglé wax dëgg yàlla. lay xamal. Mhm. ne yow mi nga xam na yaa yëkk yëkkati kàddu gu ñaaw gi di ko teg suñu dara. Mm-hmm. dootoo ko defati. dëgg la dootoo ko defete doy na ci tuuba mag waaye Macky Sall doona gis dëgg yàlla ak aal yàlla kuur gi ni nga ko la bëgg nu may la benn sikkaru Baye Fall boo xam ne wax dëgg ma koy may boo xam ne xeet naa avion lu mu gaaw gaaw mhm, kuur dama jël gaal mhm. yéeguma fas damay naaw kuur gi doo ko téye loxo nga xam ne mooy tubaab bi jànglaa ko moom xam ne ne xam ne mooy kuuru cukkal kuuru musul gis saxaanu ma. Euh, euh, euh, waaw te pare naa. Mhm. taxaw temm képp koo xam ne wax dëgg métti na la sama gouvernement na nga langu sama ginnaaw ñu dem France. jërëjëf gouvernement bi yéen a xaar ngeen dem France lijjanti loolu. Russie actuellement boo mënee may benn sukkur Baye Fall goo xamante ni actuellement day wàññi température am ah, ah, ah. moom day wàññi day wàññi day wàññi température bii day wàññi bii day wàññi température